asalaamaaleykum mbokk internet 2A TV tey ñu am mbégte euh, ñëw euh, seet ki nga xam ne rek euh, mën nañu ne ràññee nañ ko ci wàllum politique gis nañ ko nag mu am fi ay ndombal tànk yu bëri ci li nga xam ne rek moom mooy ci gouvernement bi muy wuyoo ci turu la présidente Aminata Touré moom mi nga xam ne nekk présidente du mouvement li nga xam ne rek moom mooy Mimi 2024 nekk candidate à l'élection présidentielle sociale 2024 euh, bi nga xam ne moom lañ jëm euh, tey moom la ñu daal di euh, seet si ngir am ak moom ay waxtaan ci tolluwaayu réew mi waaye laataa ñuy tàmbale waxtaan bi rek dañ koy ba daal di bàyyi mu nuyoonteeg mbokk internetu 2A TV la présidente nuyu nañ la. ah fay nañ la ñu ngi nuyu internetu 2A TV voilà di am mbégte tey. Euh, jàkkaarloo ak yow ak waxtaanee voilà tolluwaayu réew mi. merci merci beaucoup euh, ñu koy euh, jaajëfal bu baax nag ci li nga xam ne rek moom mooy entretien bi mu ñu accordel d' abord comme ma ko waxee woon tout à mu nekk candidate à l' élection présidentielle 2024 bi nga xam ne moom la ñu jëm gis nañu li nga xam ne moom mooy sa programme bi nga xam ne tëral nga ko démb fi nga xam ne rek moom nga janoo woon at say militants gis nañu ne programme bi riche na trop waaye boo ñu ci mënee ne te dellu si waatal ci tënk rek euh, li nga xam ne moom mooy euh, programme boobu boobule. waaw programme bi li ñu ci jiital mooy fexe ba ndóol jóge Sénégal. Mhm. parce que ñu ngi toll ci vingt et unième siècle euh, àddina avancé na fépp ci booy seet réew yëpp. Mhm. moo tax ma njëkk am programme boo xam ne bii dama ko tuddee xeex ak ndóol maanaam tuddee ko lekk ba suur faju mhm. jàng ak dëkk fu sell. kooku mooy premier pàcc bi nga xam ne danaa ci indi liggéey bu am solo tàmbale ko nag ci panier de la ménagère ndax nit ñi foog ñu mën euh, mën a lekk ci réew mi ñu nekk ndax wax dëgg yàlla fii jamono toll euh, bu fekkee ne yow da bëgg a jiite ab ab askan la nga war a njëkk a fexe mu am mhm. mooy nit ñi di lekk ba suur mën a faju mën a jàngi mhm. mën a dëkk fu sell kooku di premier ponk bi def wax naa ci nag action yi nga xam ne waroon naa koo jël mhm. ñaareel ba mooy def loo xam ne lii mooy priorité euh, xëyu ndaw ñi mhm. maanaam emploi emploi nag li koy indi mooy industrialisation industrialisation mooy ubbi ay usine usines yoo xam ne fa la ñuy defaree puso fa la ñuy defaree cure-dent fa la ñuy defaree ay daal loolu yëpp dañ koy jéegaani mhm. booy jéegaani nag li ngay dundee kooku pour nga développer du yomb moo tax bu ñuy changer ay président ak lu mu mën a bari mhm. fa muy mujjee mooy nit ñëpp mer parce que la ñu war a def depuis 1960 defuñu ko. defuñu ko mooy mhm. industrialisation. puso war nañ koo mën a defar Sénégal ay dàll war nañ koo mën a defar Sénégal ceinture yi sunu euh, takk der yi takk der lañ leen tuddee mooy policiers yi. ak force de sécurité yi. Mhm. yooyu yëpp dañ koy jënd bitim réew. te ngaay nekk fii ay cordonnier nekk fii ñu war leen a mën a former. Mhm. nawet gii ñu toll. Euh, boo demee Ferlo maanaam booru Ranérou ak yooyu. soow mi day bëri bañ ne bañ koy tuur parce que amuñu nuñ ko def. ba ndax meew ba léegi. lait en poudre dañ koy jéggaani di ko mhm. kon loolu moo war a dakk ma bëgg indi industrialisation loolu lu ama am solo ñetteelu ponk ba mooy ma bëgg fexe ba euh, vraiment ñu def mise à niveau mhm. li nga xam ne mooy bërëbu euh, fi ñuy fajo santé fexe ba centre de santé bu nekk euh, lu mu tuuti tuuti mhm. nga am appareil de base yi boo waree def rajo boo waree def échographie boo amee laboratoire boo xam ne bii boo duggee ci centre de santé bi yooyu yëpp dana mat. Mhm. kooku moom fépp foofu poste de santé nekk mu am fa. ñaareel ba ma bëgg a indi liñ naan hôpital sans mur mooy hôpital boo xam ne. Mhm. médecins yi dañuy fekk yi clients yi. ndax boo mhm. dëkkee ci dëkk yu ndaw yi. balaa ngaa yegg si malade ba sonn. Euh, bu ci yàlla euh, wala jàppul euh, vraiment fa lay yem. kon il faut ñu indi liñ naan santé mobile. vendredi bu nekk. jumaa ji ñu indi ay consultation nit ñi ñu xoolal leen seen seen seen suukar xoolal leen seen hypertension ak yu ni mel. Mhm. ne leen dem leen ci béréb sàngam faju ji yooyu ak santé scolaire. Mhm. bu ñu ko indee rek ak suñu hôpitaux yi aussi. hôpitaux yi mu doon lu set. propreté nag. bu fekkee ne jigéen la war a jiite Sénégal la may njëkk a jiite mooy fépp set. Mhm. fépp set. surtout hôpital école fu nekk. donc kooku muy ci wàllu ci wàllu ci wàllu santé bëgg a indi aussi chemin de fer kooku mooy doon sama projet bi gën a rëy. Sénégal yëpp saxaar si dellu si waat bu ko defee dëkk yu ndaw yi développé nit ñi mën a di commerce marchandise yi ñu koy teg ci raay bi muy dem bañ koo teg rek ci tali bi tali yi di teel a yàqu kooku loolu bokk na ci projet yi am solo lool lool yoo xam ne bëgg naa koo indi bëgg naa aussi ci suñu wàllu sécurité vraiment ñu yokk kaaraange gi yokk le nombre de soldats def armée bi mu doon une armée professionnel boo xam ne yow bu fekkee ne menuisier nga da ngay bëgg a doon un menuisier militaire dem ci armée bu fekkee ne ingénieur nga da nga bëgg a doon dem ingénieur dans l'armée mm. une armée véritable armée nation boo xam ne bii day indi kaaraange mm. waaye ca biir loolu it day indi loxoom ci wàllu développement te loolu lu mën a nekk la ci wàllu armée nag bëgg naa armée di te ak école bu ko defee ñu indi formation militaire volontaire à partir de la quatrième xale yi di dem ñaari samedi ci weer wi. ñu leen di defar formation militaire éducation civique bu ko defee ñu doon citoyen yu prêt. boo xoolee dëkk bu mel ni Israël. pat euh, service militaire obligatoire trois ans la waxuma loolu loolu ëpp na waaye pour dëkk bu mel ni Sénégal il faut ñu encadrer suñu jeunesse voilà loolu it am na solo bu baax a baax a baax. ñett beneen ponk bi nga xam ne aussi am na solo mooy ñu indiwaat beneen type de sénégalais. changé nag su ni ñuy xalaatee. Mhm. ak ni ñuy doxalee. loolu dafa am solo def ci ay programme ànd ceeg euh, média yi yu mel ni yéen mhm. euh, nit ñi mën a discipliner nit ñi mën a bëgg seen réew euh, nit ñi mën a nangu liggéey xam ne voilà alal liggéey koy indi du leneen a koy indi ndax demoon nañ fi ba dañ naan alal kenn du ko liggéey danga koy lijjanti loolu amut fen mhm. voilà yàgg yàgg rek après ci problème ngay nekk mhm. yooyu it mooy éducation civile et citoyenne vraiment loolu it bëgg naa ko indi mu doon loo xam ne lii dañ ci dañ ciy liggéey ni ma ko waxee ak presse bi ak ASC ak monde musical les arts ñëpp voilà pour sensibiliser am dëkk boo xam ne bi nit ñi dañuy bëgg seen réew mhm. voilà seen xel du nekk ci jël gaal yi ak risque bi ci am mhm. ba nga xam ne aussi am na solo mooy suñu diplomatie diplomatie man la ma jàpp mooy ci intérêt Sénégal lay tënku intérêt Sénégal mooy may tax jóg suba ba ngoon. Mhm. français CFA bi jeex na nañu indi éco bi nga xam ne ñun ñi nekk CEDEAO ñoo ko bokk. bu ko defee bu ñu amee suñu industrie yi nga xam ne wax naa ko dinañ mën a dem di exporter euh, dëkk bu mel ni nigeria parce que clients yi bëri nañ fa. Mhm. bëgg aussi euh, ci biir Afrique bi ñuy gën a jokkalante. biir Afrique bi ñu fexe ba am suñu compagnie euh, africaine du médicament. Mhm. ñu bañ a jéggaani ay ay garab. fii ñu toll bu la France joxul wala Inde jox la wala keneen jox la. Mhm. bu ñu téyee seen stock rek nga jaaxle. kon war nañoo defar ñun suñu garabu bopp. Mhm. am suñu université africaine du savoir scientifique di créer foofu ay savants yoo xam ne dañuy régler suñuy problème donc tënk naa rapidement. Mhm. Euh, suma programme euh, li nga xam ne aussi wax naa war naa ko wax. dama am nag aussi jagle spécial boo xam ne defal naa ko ñetti ñetti ñetti groupe benn bi mooy immigré yi. immigré yi li ñuy dugal ci réew mi. am na solo waaye ñoom it dañ leen war a delloo njukkal parce que bëgg nañoo investir bëgg nañoo doon ay homme d'affaires ñu jël FAISE bi nga xam ne mooy fonds d'aide euh, au Sénégalais de l'extérieur mhm. ñu transformer ko def ko banque suñu immigré yi ah, bu ñu amee projet yu baax banque bi di leen financer di ko suivre ñu doon aussi ay investisseurs mhm. fii ci Sénégal ñaareel ba mooy banque jigéen ñi jigéen ñi euh, gis ngeen projet yi ñu leen di jox ñoom dañuy jàpp ne yëf yi xaalisu politique la. Mhm. te booy seet loolu la depuis 1960 xaalis bi ñu leen di jox daanaka dañuy jàpp ne bon du pour liggéey xaalisu politique la voilà duñ ci def sérieux bi ci war. Mhm. bu ñu dajalee fonds yooyu yëpp. def ko ci banque jigéen ñi banque ba di accompagner groupement yi ñuy évoluer ba nekk ay petites et moyennes entreprises. Mhm. industrialisation bi nga xam ne maa ngi koy wax ñoom it ñu bokk ci loolu. Euh, kon loolu it du sax laaj xaalis booy indiwaat. dañuy organiser waat xaalis bi nga xam ne bii dem na ci FES bi dem na ministère de de la femme bii dem na microfinance bu ñu ko boolee rek mu doon banque ñetteelu groupe bi nga xam ne pour man am na solo lool mooy les artisans ma bëgg indi aussi banque des artisans parce que souvent wax naa cordonnier wu yi euh, voilà euh, wuude yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ngaay mm-hmm. tey boo demoon ngaay bëgg a commander dix mille paires de chaussures pour quarante huit heures doo ko am parce que amuñu machine yi nekkuñu niveau d' industrialisation boobu. Mhm. donc banque des artisans boobu bu ñu ko indee mooy pour mu jàppale artisans yi ak fépp fu ñuy liggéeyee. Mhm. ba ci sax entrepreneur culturel yi entrepreneur artistique yi aussi ñu mën banque boobu mën leen a jàppale. Mhm. bu ko defee euh, ñu indi euh, vraiment ay solution yóbbu suñu économie ca kanam. surtout surtout euh, mu doon programme boo xam ne programme bu riche la macha allah mais nag la présidente xam nga lan moo ma ci xaw a jaaxal mooy que ni gisuñu seen bopp ci mbir mi. <laughs> ndaxte ah, gis nañu jeunesse bi. gis nañu wàllum éducation bi gis nañ femmes yi euh, mais euh, dafa mel ni dégguma ci li nga xam ne moom mooy wàllum troisième âge. waaw boo xoolee suma programme bi ma présenté démb wax naa ci. xëy na mhm. xel day fattu. Mhm. mais groupe bu ama am solo la euh, ñaari ci ñaari pàcc laa ci wax benn bi mooy dama jàpp ne dañu war a créer dëkk bu nekk liñ naan këru mag. mag ñi di fa mën a dem ñuy xool seen santé physique et mentale benn. Mhm. voilà parce que mag day am besoin spécial bu bokkul ak. voilà li xale yeeg jagamaar yi di am ci problème. Mhm. muy rhumatisme nutrition ak yu ni mel. voilà këru mag googu nag aussi doon kër goo xam ne dinañ fa mën a dajaloo euh, di transmettre seen expérience. Mhm. Euh, parce que mag aussi jar naa bàyyi ci réew. Euh, li ñu xam ak expérience bi ñu am ñu mën koo jox génération bi gën a jeune boobu wax naa ko. Mhm. ñaareel bi mooy ñu am les volontaires du troisième âge fii am na docteur yu retraité am na enseignant yu retraité am na maître menuisier yu retraité maître tailleur ñooñu ñëpp ñu ne leen ah, dañoo bëggoon nag ngeen doon ay volontaire xëy na ñaari fan ci semaine bi ngeen di ñëw wala di encadré jeunes yi et cetera te wóor na ma ne lu ñuy bëgg lay doon. Mhm. ndax seen savoir dañu koy mën a transmettre. donc ñaari pàcc yooyu wax naa ko. Mhm. ci santé bi aussi waxoon naa assurance maladie universelle bi ñu gën ko dëggal nag mu bañ a doon rek ay wax. Mhm. jeunesse ñetti ñetti ñett tax ñu koy wax mooy les femmes yi nga xam ne ñooy ëmb mooy xale yi nga xam ne ñoo fi ne. ak les personnes âgées. ñu fexe ba assurance maladie universelle boobu ñu gis ci seen bopp. Mhm. bu ñu mënee dem ci hôpitaux yi nga xam ne dama ko bëggee indi ci beneen niveau. Mhm. voilà ci cet ci équipement. foofu it ñu mën leen a en charge loolu bind naa ko ci programme bi. d' accord bind nañ ko kon <laughs> euh, ci programme bi donc programme bi nekk programme bu riche euh, yaakaar nañu ne euh, képp kuy Sénégalais dina ci daal di gis boppam madame la présidente nga nekk jigéen en tant que jigéen nekk ci langum politique bi gis nañu politique bi ni nga xam ne jamono ji mel na ko ñu dem ci élection présidentielle ñuy gis ne ñenn ñi ñu ngi laam-laamee seen i candidature ñi ne ñii duñu bokk parce que waruñoo bokk. bokk yow yaakaar nga ni euh, war nañoo mën a épargner ñenn ci sénégalais yi pour duñu bokk ci élection yi ñu jëm. waaw mais li ma jàppoon mooy président Macky bi mu wootee dialogue bi mu wax. Mhm. te ne dafa bëgg jàmm am ci réew mi et cetera kon dafa war a bàyyi ñëpp bokk ñëpp nañu bokk. voilà parce que boo mënee baal euh, koo xam ne kii yoreloon na xaalis réew mi <laughs> voilà. Mhm. ci ay milliards yi milliards. kon war ngaa baal ñëpp. voilà man dama jàpp ne président Macky Sall. Mhm. Euh, li nga xam ne moo ko dese ci bopp réew mi li ci li mu war a liggéey mooy jàmm ak salaam mu bàyyi ñëpp bokk. voilà mhm. Aminata Touré Ousmane Sonko ak ñeneen ñoom ñëpp ñu bokk. sénégalais yi tànn ki nga xam ne moom lañu ñu bëgg a jël. Mhm. loolu mooy euh, la voie de la sagesse ci sama gis-gis. noonu laa ko gisee. surtout surtout hmm. euh, loolu mooy la voie de la sagesse ñu def ay élection yu yu yu yoo xam ne ñëpp euh, ñooy mën a bokk ci élection yooyu le waaye mbiru euh, troisième mandat ñu loon ko wax tata minimi à chaque fois mu loon génn di wax ci wàllum troisième mandat ba tax sax mu mel ni troisième mandat boobu moo tax sax nga mujjee génn ci li nga xam ne moom mooy gouvernement boobu le président génn taxaw ne moom du doon candidat ci élection yi nga xam ne Euh, moom la ñu jëm euh, lan ngay wax ci loolu d'abord. waaw damay félicité ñi nga xam ne ñoom ñëpp taxawoon nañu mooy muy la jeunesse d'abord mi nga xam ne gis ngeen ne ci manifestation yi officiellement am na ci fukk ak juróom-benn yu mm. yu ñàkk seen bakkan. diaspora bi aussi ma féliciter leen ndax seen taxawaay rafet na journalistes yi ngeen doon. Mm-hmm. jàpp nañ ci bataay euh, kon li mu wane mooy mobilisation. démocrate yi moo indi président de la république euh, bàyyi teg ko ci suuf. voilà loolu nag bu ko defoon bu ko teeloon a def xëy na tolof tolof yi yëpp. Mhm. Euh, du ñu ci dugg waaye nag euh, comme bàyyi na léegi na continuer ci yoon wi mu nekk. Mhm. dalal réew mi li tax mu bàyyi mooy dalal réew bi dalal réew mi nag boo bëggee réew mi dal dëgg mooy li ñu wax sànq. Mhm. bàyyil ku nekk participer ci élection yi Sénégalais yi tànn ki ñu bëgg a tànn. voilà kooku wan li mu mënee voilà muy man muy keneen. Euh, bu ko defee démocratie noonu lay demee. mais lu tax ngeen jàpp ne pression euh, askan wi moo tax mu daal di renoncer ndaxte moom mi ngi koy wax que ne seen euh, maanaam askan wi moo ko ñor te moom mosul def ay jéego yoo xam ne day wax ci mbiru troisième mandat ndaxte gis nañu ne waxoon na ne du def loo xam ne ëpp na ñaari mandat donc yéen lan moo tax ngeen jël benn objectif que ne pression askan wi wala manifestation yi sénégalais yi doon def moo tax mu daal di renoncer. waaw mais xam nga fekkee nga li fi xew yëpp mais li am solo mooy bàyyi na parce que euh, voilà ñooñom yi ñi mu àndal ñoo doon war di ko investir waxu ci dara euh, moom ci boppam bañ ko laajee mu ne wii nii wii nii non euh, ku wax ne warut def troisième mandat ngeen ayoo mu dàq la voilà kon <laughs> <laughs> demuñu gànnaar demuñu gànnaar waaye xam nañ kañ lañ fay reer waaw mais mm-hmm. li am solo mooy bàyyi na te taxawaay loolu li mu wane pour mm-hmm. aussi suñu mbokk africain yi mooy démocratie da nga ciy taxaw am ci sa fulla am ci sa fayda. Mm-hmm. voilà bu ko defee nga mën koo defendre noonu loolu noonu la demee. mais léegi li ci des comme bàyyi na lee mm-hmm. li ci des mooy jéego yi nga xam ne moom la war a teg. Mm-hmm. voilà ba a nekk ci affaire sélection way candidat loolu. tolof tolof rek lay indi. Euh, madame présidente yow xam nga Macky Sall ndaxte yàgg ngeen yàgg ngeen a liggéey euh, jàpp nga ne pression moom moo tax mu renoncé. waaw mais euh, pression la kay bien sûr. parce que ñëpp xam ne wax nañ ne Macky Sall moom euh, lu mu visé rek objectif bu mu visé da koy atteindre te lépp loo xam ne euh, njottu na ne moom bu ko defee dina ci am ndam da koy def ndax gis nañu ne ay deal mi ngi ciy am ñii di wax fii ñii di dugg di génn mais yow yaakaar nga ne réellement pression sénégalais yi moo tax mu daal di bàyyi renoncer. mobilisation démocrate yi moom amul benn werante mais looloo tax mu génn ci kooku moom. def naa ne amul lu ñuy laam-laamee muy mobilisation interne. Mhm. ak externe. kooku moom c'est très clair fii ñoom ñëpp jóg nañu woon pour fal ko tous les week-ends nga dégg ñu ngi koy investir mhm. loolu yëpp mënoon na ko arrêté. bu leen teeloon a arrêté ñu ne ah kon dey président bi moom xëy na du troisième mandat lay wut mais fii boobu ba tey ku fi ne ma président Macky Sall waroo def troisième mandat dàq nañ jëlal liste bi ku ko fi ma a wax dàq nañ la. Mhm. voilà mais sénégalais yi jóg taxaw F24 jóg taxaw démocrate yi jóg taxaw journalistes yi aussi dama leen di delloo njukkal ci wàllu woowu. Mhm. Euh, bu ko defee li mu gis ne mooy xëy na li gën ci moom moom la mujj def ak li gën ci réew mi sax. voilà mhm. donc noonu la demee mais man wax jooju sax léegi teg naa ko ci ginnaaw. Mm. maintenant la ca kanam moo ma gën a intéressé. la ca kanam mooy dafa war a continuer. warta wax rek ne man def naa troisième mandat léegi nag ci diggante fii ak février lu ma neex def déedéet loolu it kenn du ko nangu. maa ngi nii jëm ci benn réunion Amnesty International dañ fay waxtaane xale yi nga xam ne ñu ngi leen tëj ci kaso bi kenn génneegu ci kenn man suma responsable Tamba ma nga ñu tëj ci kaso bi depuis lors voilà pour lan dañ ko fekk ci buntu këram ne ko participation à manifestation interdite bi Ousmane Sonko di di di romb Tamba buntu këram dañ ko fekk jéegaat dal di ko yóbbu mm-hmm. ça fait des mois mu ngi ci kaso bi waa loolu fan lañ ko teg moom ak yeneen i moromam voilà am na yeneen i militant mais kii dama ko tudd parce que mooy suñu responsable départemental mm-hmm. donc yooyu yëpp aussi wax dëgg yàlla dañu ciy taxaw moom na libérer jeunes yooyu yëpp na bàyyi nit ñi participer voilà après mu dem toog moom ci jàmm ak salaam man mm-hmm. loolu laa gis ne mooy li des ci li mu war a def mais pas ne bàyyi naa troisième mandat rek léegi lu ma neex def fii février ah non loolu kenn du ko nangu non plus. d'accord ñu gis assemblée euh, nationale euh, semaine bee ñu génn euh, ñu bëggoon a li nga xam ne moom mooy modification article quatre-vingt-sept gis nañu ne sax bëriwul coow ndaxte ba ñu demee ba koy waaj a dugal gisoon nañu ne sénégalais yi ñu bëri politiciens yi tamit ñëpp di ci yëy bi jàpp ne loolu buñ ko naree intégré day doon loo xam ne askan wi mu mel ni nag mbir moomu dafa mel ni dañ koo gaaw a retiré euh, doonul loo xam ne def na coow bu bëri mu mel ni nag jamono jooju euh, ñëpp jàpp ne euh, peut-être ñi nga xam ne ñoom ñooy waa coalition benn Bokk Yaakaar wala waa APR ñoom ci boppam jamono ji àndatuñu sax at ki nga xam ne moom mooy président de la République ci décision yi nga xam ne moom lay jël. waaw xam nga peut-être li ñu war a wax mooy lan mooy article 87. Mhm. article 87 bi. bu nu ko wote woon mooy président Macky Sall bu bu xëyoon ca ëllëg sa mënoon naa tas assemblée nationale kon député ya fa toog dootuñ doon député. duñ doonati député voilà donc ñoom it xam naa dañuy ay ay mag ñu dul fecc yal naa de parce que buñ ko signé woon. loolu mhm. mooy euh, président Macky Sall kaay dàq ñu saa yu la neexee. <laughs> loolu it ñoom comprendre nañ ko bu baax a baax. ba ba ci waa Bennoo Bokk Yaakaar. Bennoo Bokk Yaakaar ak ci opposition donc ñoom ñëpp ñu ànd bañ ko. kon li nga xam ne lii bañ gisee ne seen intérêt. Mhm. voilà euh, dan leen ko naroon a xañ dañ cey jog taxaw. kon dama leen di féliciter waaye dama leen di encourager saa yu ñu gisee loi bu ñu indi boo xam ne dëppoowul ak intere réew mi mhm. ni ñu taxawee woon ci seen intérêt pour bu ñu bañ leen ko xañ nañu taxawee noonu pour préserver intérêt réew mi tamit surtout voilà noonu la demee loolu mhm. looloy looloy looloy wax ji lu tax président Macky Sall indi woon loi boobu waaw moom rek a ko xam waaye teel nañ ci génn parce que ca biir kaam mhm. la nit ñi nanguwul parce nga mm. nekk député ñu fal la yow mu wóor la ne fii léegi juillet deux mille vingt deux kenn mënu laa dàq ndax loolu la loi bi wax. Mhm. ñu indil la benn euh, loi ne la signé ko bu ko defee su subaa bu président Macky Sall bëggee dàq euh, député yi du am benn problème ñu lànk noonu la demee. d'accord euh, <laughs> def nañ seen fulla ak seen fayda. parce que seen intérêt direct la woon waaye ni ñu taxawee woon pour seen intérêt direct. Mhm. maa ngi leen di ñaan ñu koy taxawee pour intérêt askan wi aussi. ba tey ba tey le président de la république euh, waxagul kan mooy candidat wu euh, mouvance présidentielle bi ñu bëri euh, di di ci yëy yàbbi ku nekk di di indi profil ñii di joxe ay Amadou Ba ñii di joxe ki nga xam ne mooy président assemblée nationale même ki nga xam ne rek moom mooy Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñu bëri di joxe profil yooyu yow yaakaar nga ni ci profil yooyu yëpp Macky Sall dina ci teg kenn. waa man sama yoon daf cee newul sax ndax man jóge naa fa yàgg na. Ah. voilà candidat bu ñu bëgg a mun a teg rek euh, ci langue gi lay bokk euh, bu boobaa Euh, discours yi dinañ xam euh, nu nuy waxee candidat boobu mais kooku du suma du lu may commenté ndax sama yoon newu ci wax dëgg yàlla. wala mun na wala mun na profil yooyu yëpp. ah kooku mooy seet na muy tojee bopp janaxam <laughs> man maa ngi ci Mimi 2024 loolu laay toppatoo ànd ceeg opposition F24. Mhm. waaw na muy defee affaire interne kooku wax dëgg yàlla bu ma ci duggee nag euh, ma xam ne maa ngi dugg ci li suma yoon nekk. d'accord on comprend nañ bu baax ñu jeexalee ko rek mën ne euh, barricade yi nga xam ne defoon nañ ko euh, ci ki nga xam ne moom mooy domicile Ousmane euh, Sonko daal nañ ko lever gannaaw avant procès at après procès yëpp mu mel ni kii di Ousmane Sonko dafa nekkoon sous résidence surveillée ñu xëy gis ne barricade yooyu dal di nañ ko dindi donc lan ngay wax ci loolu noonu le waaw mais barricade yooyu waru fa woon a mës a nekk kooku c'était contre la loi mhm. <laughs> d'abord pour commencer waaw mais léegi nañ ko bàyyi mu doxi soxlaam looloo ci des di voilà gis nañ ne waa kër gaa ngi commencé génn moom si boppam nañ ko bàyyi mu doxi soxlaam voilà parce que lii yëpp aussi pour élimination candidat la woon rek. Mm-hmm. voilà ndax lii nu ko téye euh, coow li bari woon na viol menace de mort fu ñu mujjee juge ci ne moom ci boppam loolu yëpp amul. kon la ca waroon a topp mooy ñu bàyyi ko mu dem. kon amul dara lu extraordinaire ay barrière waru fa woon a nekk waruñ ko woon a téye jugement biñ ci am it waru loon a am laa doon wax ne président Macky Sall na dem jusqu'au bout. bàyyi ñëpp ñu doon ay candidat euh, bu ko defee sénégalais yi tànn ki neex man candidat laa xam nga. Mhm. voilà mais man en tant que démocrate dama jàpp ne Ousmane Sonko war naa bokk. ku nekk keneen war naa mën a bokk bu baalee kay ñamu baal ca dialogue ba wax dëgg yàlla war naa mën a baal Ousmane Sonko. Mhm. donc barrière ya ñu dindi waru fa woon a nekk pour commencer. voilà na dem jusqu'au bu bàyyi ko mu doxi soxlaam jugement bi ñu ñu kase ko mu nekk candidat après Sénégal continuer. am nga am na nga am nga njoxtu que ne Ousmane Sonko dina dina dina bokk ci élection yi. en tout cas war na ci bokk pourquoi waru cee bokk parce que yii yëpp ay ndëgg sërëx la woon pour euh, pour empêcher ko. Euh, noonu la noonu la demee woon wax naa ko du benn du ñaar ba ci procès Mame Mbaye Niang bi ci ay diffamation ba ci loo xam ne lii juge ba chef d'accusation yeeg da ko sànni teg fee ak coow li ci amoon yëpp. Mhm. kon kay la ca des mooy ngeen bàyyi ko mu doxi soxlaam doon candidat. Sénégal ay tànn déglu profil yi ku ñu jiital ne moom lañ bëgg comme président ñu xam ne loolu la yàlla dogal ñoom loolu lañ dogal. Mhm. <laughs> noonu laa ko gisee. <laughs> di ñaan nag ñu tànn ma aussi comme président de la république. parce que am naa <laughs> ah programme bu baax am naa mhm. expérience bi. ak li ci des. léegi ñun euh, balaa ñu jeexal foofu parce euh, épargner si sa programme. waaw journaliste yi. na eh, lu tax lu tax candidat yi du ñu boole journaliste yi. <laughs> waaw journaliste yi ci Sénégal ci société bi lañ bokk. Ah. bu ma wàññee dund bi. Mm. du ngeen ci gis seen bopp. panier de la ménagère yow da ngay dem marché. waaw damay dem marché. waaw ma ngoog euh, moom mi day joxe dépense këram dina ci gis boppam. <laughs> Eh. école yi nga xam ne wax naa wax naa ci seen doom yi dañuy jàngi de. Mm-hmm. hôpitaux yi nga xam ne bëgg naa ko voilà upgrade ni koy waxee. Mm-hmm. kooku it aussi seen intérêt la. Mm-hmm. xëy na point spécial bi nga xam ne euh, effectivement war nañ koo xalaat mooy euh, d' abord la liberté de la presse. naka lañ koy sàmmee. parce que après lii ngeen dund yëpp. six mois sept mois yi ngeen dund yëpp. réflexion war na cee am. parce que journaliste ñoxoon Ndiaye ñu jël yóbbu kaso tëj wala euh, toroxal et cetera. loolu war naa yéen seen bopp yéen a war a def seen assise. voilà def ay proposition pour mm. gën a protéger nag la profession de mm. journaliste parce que ñëpp ŋàññi nañ arrestation yi mm-hmm. voilà euh, ñoom Pape Alé et cetera ak ñoom ñëpp àddina bi yëpp wax na ci voilà donc loolu it aussi war nañoo xool code de la presse bi. Mhm. aussi niñ koy gën a renforcer yéen ngeen mën a gën a défendre seen profession mais aussi gën a seen bopp. parce que la liberté de la presse euh, droit boo xam ne constitution bi moo ko reconnaître. surtout surtout surtout parce que presse bi tamit da cee war a am wàll. ndaxte mhm. ñun moom vraiment euh, sonn nañ trop trop trop si li nga xam ne moom mooy euh, situation bi. Mhm. gis nañu jamono ji li nga xam ne moom mooy immigration clandestine bi itam sunu raq yeeg sunu mag yi euh, di des si li nga xam ne moom mooy ci ndox mi gis nañu tout à l'heure ñu ñuy annoncé comme quoi que ni euh, fi nga xam ne moom mooy Wakaam daal dinañu repercer foofu lu tolloog quinze euh, personnes yoo xam ne dañoo mujj sax ñàkk seen bakkan ñu daal di leen repercer foofu xamuñu sax ñooñu amuñu sax seen i identité mu doon situation boo xam ne situation bu difficile la en tant que candidate tey ji nii lan ngay wax ci loolu ne en tant que yaay sax balaa may doon euh, candidate sa mm. xol sa xol da ci day metti ba fi metti mën a yem mm. ndax ñooñu ay jigéen leen jur ni ma juree samay doom euh, c'est une tragédie amul leneen luñ ci mën a wax moo tax damay def appel jeunes yi ne leen franchement toog leen Sénégal ak mm. ñun ñu ñu tabax réew mi ensemble voilà ñu tabaxandoo ko mm-hmm. toog leen Sénégal ñu tabaxandoo ko ndax kenn bëggul jur sa doom ba mu war a tekki voilà muy dee ci ndox mi kenn bëggu ko ñun dañoo bëgg suñu doom yi toog fii ci Sénégal voilà ñu ubbi des perspectives en février beneen régime mooy am ngeen mën cee am yaakaar. Mhm. voilà bu ko defee ngeen am fii toog fii tekki fii am fi seen i soxna yor yar fi seen doom. vraiment appel boo xam ne ci sama xol laa ko jëlee euh, jagleel ko vraiment tout cette jeunesse mhm. ñu bañ a asaaloo wala lotori seen àddina. Mhm. voilà ci ndox mi ak euh, voilà aussi bu nu ko. Euh, bu dul sax ñu xalaat seen i ndey seeni yaay. Mhm. voilà bu ma ko defee mettit ba nga xam ne moom laa koy teg wax dëgg yàlla euh, appel la pour mhm. que ñu toog fii ci réew mi construire loo réew mi Euh, Sénégal am na ay atu yu bare bare bare ñu ngi nii war a am gaz war a am pétrole bu ñu ci defee bon gouvernance bi nga xam ne moo ci war ci sama programme aussi bon gouvernance ngi ci bu baax a baax a baax a baax wax naa dématérialisation processus administratif ba kenn dootul toog ak ki nga xam ne moo lay laaj xaalis ñaareel bi IGE ñu décentraliser ko yóbbu ko ci ministère yi ñuy contrôler dépense su ministre bi balaa moo dépensé jël IGE yóbbu ko assemblée nationale voilà yooyu bu ko defee ba nga xam ne réew mi xaalis bi bi ci soxla yi lay dem dootul dem ci poos yi dina situation bi dina gën kon toog leen fii ensemble wala ñu taba tabaxandoo sunu réew incha allah ñu tabaxandoo euh, sunu réew xam naa nag li ñu mayoon accordel woon ci temps daal dina euh, jeex dañ lay bàyyi rek nga daal di euh, tàggatoog mbokk internet yi at message boo xam ne rek yaa ngi koy lancé sénégalais yi surtout waaw di leen remercier ci waxtaan wi di wax sénégalais yi ne élection yi ñu jëm nag élection yu ama am solo la mhm. voilà ñoom ñëpp nañu déglu bu baax candidat yi déglu programme yi. Mhm. ginnaaw président Macky Sall bokkut. Euh, voilà et puis ñu tànn. Mhm. ñu tànn kandidaa yi nga xam ne jàpp nañ ne am nañ yaakaar ci ñoom. voilà noonu rek laa ko mën a waxee di ñaan yàlla defal ñu nawetu jàmm ak salaam. Mm. Euh, yàlla aussi. musal ñu ci ay inondation mm. euh, ndax dëkk bi yëpp ñu ngi ko gas mm-hmm. may ñu nawet bu barkeel sàmm ñu sàmm njaboot gi mm-hmm. ak lancer un appel encore aux jeunes vraiment ñu toog fii ensemble ci seen weti yaay yi seen weti papa yi mhm. ñu tabaxandoo sunu Sénégal jërëjëf vraiment merci merci beaucoup ñu koy euh, jaajëfal bu baax a baax a dabaax mu nekkoon euh, la présidente du mouvement Mimi 2024 euh, moom mi nga xam ne nekk candidate à l'élection présidentielle bi nga xam ne moom la ñu jëm tey moom la ñu seet si woon am ak moom ay waxtaan di ko jaajëfal ci disponibilité bi waaye itam mbokk internet yi di leen wax rek rek ni ngeen di wéyandi eh, di ñu suivre eh, nii rek lañ koy eh, defee seen bi chaîne 2A TV di leen jox dig daje beneen yoon at beneen invité jaa ngeen jëf.